wël fël gàmmi jémmiñu sàmm dangay xam li muy wëlis toos man li ma fi àndi du loolu ngay wax du wàllu mariage yow xam nga li xew sa ginnaaw dafa bari te xam naa ni xamuloo ko sa jër ba Ramatulaay dañu koo violé. kan lañ violé toos Ramatulaay dañ koo violé. dafa nànk may sa dañ koo violé. waaw dafa nànk. buguma nga am problème ak ramatulaay nga mere ko ba sosol ko non dama lay wax rek may sa kilifa ngay waxal dama bëgg nga def nak nga wax ak man parce que man ba le man djuk di régler ben affaire day fekk li tax ma djuk nek lu ni midi dama bëgg nga jox ma ay information yu leer nañ ramatulaay nak lañ ko mëna violer man ma nek nijaayam binto binta waxumako man duma ko yëg alors que goor nek fi waxumako duma ko yëg yow ya makay wax loolu mënul nekk. Ramatoulaye dañ koo violé tons dañ koo violé ci apartement fekk Ramatoulaye ci appartement violé ko. fa lañ ko violé. Binta yëgul loolu. Hmm, tons ani góor a. góor mais ani góor a. góor a yow góor a dara góor a nekk ci problème mu mariage am bii moom Aïda. daa dal kenn lijjantiwul Ramatoulaye lijjantiwul kenn moom mariage bi la tal. encore góor a day day takk jabar kon yëgoo. léegi ñoom bu ñu paree ñoom nañ wax ñoom kan lañ bokkal direct wala kan mooy seen kilifa su lii amee ñu violé sama jarbaat yëguma ko góor a dem bay tàkk jabatama yëguma ko man léegi man xamatuma lan laa nekk ci ñoom